C'est Moursey, coordinateur de la commission digitale de la coalition Gorioubès de Khombol. à tous les Khombolois, mais aussi à tous les Sénégalais. Les résultats donnent victoire à la coalition Gox Yu Bees de Khombole avec un score de 3417 sur 3414 pour la coalition Benno Bokk Yakaar, ce qui montre que nous avons devancé la coalition Benno Bokk Yakaar de trois points ou de trois voix. Le contexte ici est clair. La jeunesse a toujours été debout pour le changement. Après huit ans presque de gestion gabegique de l'équipe municipale sortante. C'est pourquoi les jeunes se sont mobilisés pour amener le changement à Khombole en votant massivement pour le candidat de Gorioubès, M. Magaïboy. D'ailleurs, que nous félicitons pour sa victoire. Alors, il s'avère que la coalition Benno Bokk Yakaar veut amener un imbroglio dans la tête et dans la mentalité des Khombolois. Ce que d'ailleurs nous regrettons parce que Khombol est une ville où tout le monde entretient des relations cordiales. Nous ne voulons pas du tout que ces euh, relations cordiales se détériorent à cause de ces élections municipales qui vont passer. Alors c'est pourquoi d'ailleurs Nous, de la coalition Gor Yu Bess, nous demandons au candidat de Benno Bokk Yakaar, Mamadou Lamine de reconnaître sa défaite et de remercier son ami, je ne dis pas son adversaire, son ami, monsieur Magaye qui a gagné. Alors, il faut aussi qu'on dise que nous avons toute la confiance de la justice de notre pays, de la commission des votes. Nous sommes conscients que nous avons gagné de 3 417 voix sur 3 414. Alors, il y a problème parce qu'après 72 heures, il n'y a presque que Khombol qui reste toujours dans le doute, même si on est sûr de notre Alors, nous alertons toute la jeunesse de Khombol, mais aussi toute la population de Khombol, ainsi que l'opinion nationale et internationale. Nous attirons l'attention des autorités étatiques, en commençant par le président de la République, M. Macky Sall, ainsi que le ministre de l'Intérieur, qui est chargé de l'organisation des élections municipales, que nous saluons d'ailleurs, puisqu'il habite à Khombol. nous ne voulons pas qu'il y ait, n'est-ce pas, du feu à Khombol. Alors donc, nous attirons l'attention de tout le monde, de même que la société civile, que les jeunes de Gorioubès sont déterminés à sécuriser la victoire éclatante de M. Magaiboy de la coalition Gorioubès. C'est justement l'objet de notre point de presse aujourd'hui, mardi pour euh, tout simplement sensibiliser tous les Khombolois ainsi que l'opinion nationale et internationale qui suit de tout près ce qui se passe à Khombole. D'ailleurs nous avons fait appel à Khombole sur orbite pour parler comme le candidat monsieur Magaye Boye. Khombole est déjà sur orbite. Nous allons changer Khombole avec Magaye Boye, avec son riche programme Khombole sur orbite, une vision du développement local. pour faire de notre chère ville un laboratoire de développement local. Mais c'est regrettable ce qui se passe, mesdames et messieurs, cette situation névralgique, ce qui ne n'honore nullement l'image de notre ville. Mais nous, jeunes de la coalition Gorubès, nous tendons la main à nos amis de la coalition Benno Bokk Yakaar de taire les querelles et de passer à l'essentiel, l'essentiel comme nos slogans, c'est que Khombol gagne et que nous sommes prêts à construire Khombol avec tous les fils, avec toutes les filles de Khombol, sans nulle discrimination. C'est d'ailleurs le, le, discours de M. Magaïboy. Je vous remercie, mesdames et messieurs. Euh, salaamaaleykum maa ngi tudd Cheikh Ahmad nekk le vice-président du comité de quartier bu Guinaw Rail bokk ci membre coalition gox yu bees à Khombole ñuy nuyu waa Khombole di nuyu waa Sénégal di tàmbali di remercier la jeunesse xomboloise parce que wane nan benn taxawaay bu am solo ci élection municipale yi nga xam ni moom lañ génn nii di ko féete ak ndam lu neex di euh, nuyu nag aussi monsieur Magaye Boye mi nga xam ni moo nekkoon candidat de la coalition gox yu bees di ko féliciter ci ndam li nga xam ni moom la am en même temps di wax ni li sunu frère muur Seye wax léegi en français dañ ciy comp tuuti rek pour ñu mën ko wax Sénégal di wax ni la grande coalition gox yu bees am na ndam bu sedd guy parce que jeunesse bi dañoo jug taxaw wane ni xombol dafa jot ñu changé ko liñ ci mën a waxaat mooy gis na ni la coalition Benno Bokk Yaakaar ñu gis ni résultat ci urne lay jugee mais du jugee ci ay kàddu ñu gisaat ni ki nga xam ni aussi dafa gañe du def recours te ñoom danoo déclaré ni ñoom danoo gagné mais gagné wuñu mais wax nag ni di remercier aussi suñu autorités yi nga xam ne ñu ngi fii ci dëkk bi en commençant par le grand frère Antoine Félix Abdoulaye Diome ñu nekk le ministre de l' intérieur di ko wax ni ko ñu ngi koy remercier bu baax wan di ko wax ni su xombal yëpp jug nañ taxaw wane ni la coalition gox yi bees dafa am ndam ñu bëgg ko feete loolu moo taxoon nag ñu dañuy leeralal Sénégal yi wax leen ni leen am na lu ñuy dégg nit ñi di ko wax mais lii mën na ne mooy résultat bu génnee ci urne kooku moo mën a def recours mais résultat génnagul coalition benn Bokk Yaakaar di wax ni ñoom dañuy def recours loolu amul cohérence di leen jaajëfal nag ndax du ma mën a sori parce que sama frère Ndiaga dafa am ay éclaircissement yu bëri yu mu bëgg a wax jërë ngeen. salaamaaleykum euh, waa waa Sénégal man maa ngi tudd Ndiaga Kairé nekk euh, responsable. ci coalition gox yu bees xombol di leen nuyu di leen ziyaara waaye ñu am naqar ak njàqare ci li nga xamante ni dafa xew ci askan woo xam ne dëkk bii mooy dëkk Mamadou Dia dëkk bii mooy dëkk Seydi Hadji dëkk bii mooy dëkk Cheikhul Khadim waaye kii di wax ak yéen mooy sëtu Cheikhu Canaba comme xombal mérito na leneen ludul jàkkaarloo di jàmmaarloo ci ñu bokk ndey bokk baay élection la yu fi amoon yoo xam ne dimanche amul kenn koo xam ne jote na fi ak nit wala benn bureau de vote boo xam ne dañu ko tëj avant heure bi dem nañu sax ba heure 19 heures 18 jot am ñu des préfet def arrêté yokk ba 20 heures ñu vote ba mu jeex dépouiller cinq quatre centres ak beneen cinquième centre bi ñu dépouiller quatre bureaux mu des ñaari bureau ci suñu mbetteel ñu gis waa Bennoo Bokk Yaakaar di jibile te dëkk bi des ñaari bureau de vote yu génnagul bi ñaari bureau de vote yi génnee la coalition gox yu bees gañe élection yi rawe leen ñetti poñ ñun ñu ngi am ñetti junni ak juróom-ñetti fukk ak fukk ak juróom-ñaar ñoom ñoo am ñetti junni ak juróom-ñetti fukk ak fukk ak ñeent comme la coalition gox yu bees moo gañ élection locale yi amoon dibéer gi ñu génn ñuy interpeller kilifa diine yi cosaanoo xombol kër sëriñ Mansour nekk fi kër sëriñ Mbàkke Madina nekk fi muy ñaari sët yoo xam ne ñoo ngi yem dayo fii ci réew mi kenn ku ci nekk sanc xombol di dëkku jàmm salaamaaleykum mbokki xombol salaamaaleykum mbokki senegal maa ngi tudd Ndiaga Kéré nekk responsable ci coalition gox yu bees di rafetlu mais di féliciter monsieur Magueye booy ci victoire bi nga xamante ni yàlla dogal na yàlla teg ko ci loxoom ci anam yu leer ñuy wax ak la population xomboloise di wax ak ndaw ñi di leen gën a ñaax ci pas-pas bi ñu am ngir soppi xar kanamu dëkk bi ci dëkk boo xamante ni dëkku dayo la waaye dëkk la boo xamante ni dëkku màndarga la waaye dëkk boo xamante ni dafa war a jóge fi mu nekk def fen dem feneen ci dëkk boo xam ne dëkku Cheikh Hadji Malick la waaye dëkku Cheikh Ahmadou Bamba la boobu dëkk mérito leneen lu dul jàmmaarloo ñun ñu gañe ci ay élection yu leer di wax sénégalais yépp ak xomboluwaa yépp que benn histoire mosul am ci benn bureau vote ci huit ba vingt mosul am bi ñu dépuyee compté coalition gox yu bees jël na ndam li ci ñetti point la rawee bennoo bokk yaakaar bi ñu ko rombee ci suñu mbetteel avant ñuy pare li des ñu gis leen ñuy jibile ñun suñu yoon nekku ci mais li ñu ñor mooy que ni coalition gox yu bees gagné na élection yi ci procès verbal yi nga xamante ni suñu jox nañ ko ñi nga xamante ni ñoom la état yebaloon ñuy saytu mbirum élection te ñun am nañu yëg-yëg waaye am nañu wóolute ci suñu ëttu attekaay yi muy ñi nga xamante ni ñoo yor yoon ñooy joxe ay résultats ñun wér nañu ni ci PV yi ñu jot di ñaar fukki PV ak benn gagné nañ ci fukki bureau ak juróom. ñoom ñu gañe ci juróom benn bureau bi ñu wàññee nag coalition gox yu bees moo gañ élection yi waaye ñuy wax ne boo gisee jeunesse bi mobilisé wu nga xam ne jeunesse bi ñoo mobilisé woon jël seen ay carte jox ko coalition gox yu bees jeunesse bii nga gis ñu mobilisé wu ñoo bàyyi woon seen ay examen ñëw pour changer notre vieille ville Xombol nekk commune 1925 amul dara dara dara ñii ñu joxoon dëkk bi ci juróom-ñetti at defuñu fi dara may lancé appel ci kandidaa bi nga xamante ni dañoo jàkkaarlook moom muy suñu mbokk di Mamadou lamin Guèye na jël téléphone am mu woo monsieur Magaye booy mu félicité ko wax ay nitam ne leen ñu bal li ñuy def ak manipulation yi parce que ñun am nañ conscient maanaam xel mu mat mu doy ci kenn mënuñoo manipuler kenn mënuñoo jaxaseek askan wi ñoom dañoo ñàkk élection yi dañ leen koo joxoon ci dignité defal leen passation de service nan ñu ko joxaat ci dignité ñu defal ñu passation de service parce que on a d'autres choses à faire dañoo war a jublu ci liggéey bi pour mettre xombal sur orbite jël xombal aj ko ba mu amum seen ba foo ne ci àdduna bi xam ne xombal jóge na fi mu nekkoon décollé na ci voie de développement loolu la ñuy woo le candidat de Benno Bokk Yaakaar PV yi indi jafe-jafe bépp représentant bu fa nekkaloon parti yaa ngi ak 21 PV yu bokk ak yi nu yor ci loolu lañuy insisté ñun yor nañu ko gox yu bees ñoom yor nañu ko ñoom yor nañu ko yeewi askan wi yor na ko comme ñu ngi wax kilifa yi ne leen nañu wax ak ñoom ñu régler ñu toog te jox ñu suñu victoire te monsieur le la Lamine Gueye mu jël téléphone am mu féliciter monsieur Magueye booy parce que dafa ñàkk élection yi comme ñàkk na élection yi dañ ko ko joxoon ci dignité nañu ko delloo ci ngor ñoo ko voteeloon fal ko voteel nañ keneen fal ko ñu ngi gërëm ñëpp di gërëm jeunesse bi ci seen mobilisation di leen wax ne leen am réew ay ndaw a koy doxal ak xalaatu mag ñi ñu ngi leen di sant di leen gërëm wasalaam. kon mbir mi déedéet xam nga ñun fi toll nii boo xoolee ndaw ñi génn ci 72 heures yi mooy bi ñu dépouillé ba calculer xam ne rawee nañ ko ñetti poñ li fi nee woon ëpp na ay millions ngi ndaw ci ay primo votant nag laa ndaw ñoo xam ne dañuy doog a majeur soxla seenu dëkk ndax ñu am teraanga ci seeni dëkk. comme ñun amul dara lu ñuy bàyyi li mu leen jaral ba ñu am fu ñu wéeru dañuy jaral lu ko raw ñu déglu suñu justice ba pare parce que dañoo am ci ñoom wóolute te wér nañu ni li ñu la yor moo fa nekk comme ñun amuñu lu ñuy wax ak ñoom ci contexte boobu mais bu laajee leneen dañu koy def ndax ñun pare nañ ñun la jeunesse ñun la jeunesse ñun la jeunesse dañu déterminé wu déterminé wu mooy dañoo jël suñu ay jot yàq suñu ay liggéey pour jële suñu dëkk bi ci ñàkk koom ci jële suñu dëkk ci ñàkk xëyukaay ci seli jële suñu dëkk ci ñàkk marché bu baax ngir am ay infrastructures yu mucc ayib te ñu ngi ko yaakaare ci la ci candidat de la coalition gox yu bees monsieur Magaye booy loolu moo tax ñu am volonté mobiliser wu voteel ko mobiliser wu pour jàkkaarlook lépp lu ñu ko nar a xañ je vous remercie manifesté wu après les cinq ans ñu am un bilan positif tuulee ci soow mi faaw ñu seppi ko amul benn jeune coalition gox yu bees bu ñàkk xel ak xalaat wala njàng bay sànni kër ministre de l'intérieur ñu ngi jalonné ak gendarmerie ñun on est conscient ci non violence depuis que ñu commencé campagne bi ay xale yu yaru lañ am ay xale yu discipliné lañ am waaye li tax ñuy interpeller opinion bi mooy dañoo gis ñoom ñu tàmbalee def ay manipulation te duñu bëgg a xaar ba mu dem ca cëppaandaw ga dañuy interpeller ñëpp